Baye ñëw na jëlee ma tribune ba ña nga naan baja baja yee moo fu seen Baye jóge ban sëriñ tele la seen Baye indil. ndeysaan Fallou koy rey boppam Fallou koy rey boppam Fallou koy rey boppam Fallou lu xew. Fallou lu xew Fallou Fallou Fallou lu xew. Fallou la moo la yëgal. ma la Fallou Gadiaga. waaw Fallou Gadiaga. waaw la moo dawloo sa yaram. waaw Balla Gaye. Balla Gaye. moom. waaw. Oumar Sakho. waaw moom. waaw sama xarit la Omar Sakho sama xarit la waaw yaa baax yaa gole bu jàppee kii la bodo takk yi takk dëggalu kooku kopp ma xeexee ma xeexee ma xeexee ku dugg ma bëre e lépp ndeem e lépp yow Fallou foo teg tànk Gris Bordeaux baaxul waaw waaw sa fa Balla ma fala man man yaxa me di sagal sagal yaxa me sagal tànn bi bi lay tànn bi naa ko def man mii sabal naa ko def oh, oh, ma ko si la baax ma xeexee ma xeexee ma xeexee gij jaaj jaaj Balla Gaye kese gij jaaj jaaj am na ko kese nga ni lan